واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق الى لقياك وعليك ملء الارض من صلواتنا وقلوبنا ذابت على ذكراك يا سيدي قد جئت بابك سيدي ومكثت ادعو الله دون تردد فرايت باني في اعز سعاده وبان كل الخلق اضحى في يدي ورأيت بأني في أعز سعادة وبأن كل الفضل أضحى في يدي وعلي وأكثرت من إكثار الصلاة بروضة فرأيت بأني في مراقي السؤدد لم لا وأنت المجتبى والمصطفى لم لا وأنت لنا المشفع في غد أنا لست أخشى الضنك في دنيا الورى وخزائن الرحمن لما تنفدي أنا لست أخشى من ظلامة ظالم أنا لست أخشى من عداوة معتدي أنا لست أخشى زلة أو ذلة خير البرايا شافعي ومؤيدي أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدا وأنا المحب لآل بيت محمد يا, يا أكرم الخلق جئنا صوب ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد رؤياك كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا تراها عند مثواك من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك إنا نحبك عن بعد وعن كثب وما نسيناك يوما أو سلوناك يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظات تأتي لنا بالظفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولومي غور اك جيجين ماك اك نداو نيغي نوي نيب دي سي جيتال كي يالا جيتال سي نون موي سونو سيرين سونو سانغ كيغا خامتاني مو ني تكتال يوني مباخ يوني يو مولانا وسيدنا شيخ محمد الماحسيسي يا ماحي الكفر انت القطب اواه والبدر أنت تعم الكون أضواه عش عمر نصر بن دهمان بعافية حتى تدين من الإسلام قواه بمدح الشيخ قد نطق اللسان بيانا لا يماثله بيان فأكرم بالإمام شيخ ماحي حماه الله ما دار الزمان سرين بيالنا yàlla na yàlla الفنان fanam gannaaw loolu ñi ngi nuyu mbooloo mi muqaddam yi gan yi ñu jugee ba Angleterre ñu jugee ba Singapour ak Guinée Bissau ñu jugee ba Ghana Nigéria ak ñi nga xamante ne ci biir dëkk bi lañ jugee ñëpp di leen nuyu nuyu ba gën a tedd di sant yàlla ci jotaay yu mel nii jotaay bi du jotaay dara lu dul jotaay fàttaliku yonentu yàlla Muhammad jotaay yu jàngale ndax ay mbooloo yoo xamante ne ay jullit lañ te ki ñuy askanu mooy Mawlaana Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo wax ne bi zaahiri shar'i والنور المبين رب السالكين بلا شك ولا ريب في شريعة بو ناني اك لير بو ناني بو خامتاني سي يالا لا جوغي سي يننت لا جوغي موم لاي يري سما طالبي اي طالبين بو ندجي بن براب ورنا نيو فاتري كو وانتي يون بي لان لا ورنا نيو خامتاني تاميت لين دجالو لان لا لين دجالو نك موي بس بو تيد بوم خامتاني بصيري موشد وخنه ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أنقت ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى ايوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء موي جدي بسيل بوغ خمانتني يننتي على محمد سيلا جدو جدي بوغ خمانتني سيلا الإسلام جدو gudi gog la teranga juddu gudi gog la kawe juddu gudi gog la liberté juddu juddu pour mbooleem doomi adama yi kon gudi gog faaw ñu magal ko ngir roy suñu sëriñ ñi nga xamantene moy wax ne azim habibi azimi mawlida dal muazzami fa inna man lam yukrimi mawlidahu faqad jafa magalal loy magal juddu yenen ci yàlla muhammad ngay magal juddu ki nga xamantene mo ñëw dimbale ñu xétalé ñu عيد البرية عيد المولد النبوي في المشرقين له والمغربين دوي عيد النبي ابن عبد الله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العلوي فيت بقنا ما قلت جلدني موي بس بي تبس كباهنا يب بو ينن تبي دو أم كم ينن تبي لول لب أم bam nek ay fete ñi kay feto deug deug yenentu boobu moo gën a yelloo ñi feto walidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassum wa sana'u li juddu njub la njub go mo ñi dajale fi waye du place bu nek ci adina lañuy dajale waye barab bi gën wala bi gëna kawe ci barab yi daanaka lañuy dajale moy madinatu sheikh ibrahim ni'mat madinatu harab al ashrar عنها وفيها سكن الأبرار فيها علوم الشرع والأسرار وما لإبليس بها قرار مدينة سلنا لطخ مبون يب دفي جوجي تباي مو وخون لول ني يالا تي بركة ينمت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جلينا في لب لو خمنا مبون لا جلينا في كيب كو خمنتنا فاسق لا و كل باغ وزحزح عنها كل باغ وفاسقي kon place boobu teena boo fi ñëwee loo fiy fekk sharia bu wér péng nga fiy fekk loo fiy fekk lasaraar yu wér péng nga fiy fekk loo fiy fekk leer bu wér péng nga fiy fekk loolu lay wula xaamidun di wax ne wa dayfu ibrahima laa yaxtashi fiha adan fa laysa fiha ada képp koo xam ne ganu baay la boo ñëwee loo fekk mooy mbaax do fi ragal dara lo xamanteni ne na lor doomi adama ndax luy lor doomi adama yàlla moko fi jele manafi'ul muslimina ahidtuha fi madina id kuntu awi ilayha fi madiyat as sinina wa ahduru ad-dars fiha wal xiinan fa wa kada yaftahu fiha alayya fathan mubina lépp lo xamanteni ne njëriñ la pour doomi adama mune mom min nako way ñun tamit min nañ ko ci fan madina gi lañ ko miné jamono yima fi daan ñëw mune ma fi daan fekk bay di wax yu baax yoo xamante ni dafay jubal nit di xutba xutba yoo xamante ni ku ko déggee rek fa ngay jaaree jub ba faw di fi fekk xam-xam bu leer boo xamante ni boo ko déggee boo jubadi woon tamit da nga mujj jub ndax am na ci jëf yu bon yoo xamante ni xamadi rek moo ko mun a defloo nit waaye ku xam دك دفمك وعلمه أيضا شذر فيهم مذر كما الجود شذر أو مذر وإن يقوم فيهم خطيبا يقول ما يخجل التبر ويخزي الدرر من خطب في القلب ولاجة ما لا تولج حداد الإبر في دعوة إلى سبيل الهدى يهدي بها الله قلوب البشر لا يسمع الشيطان إلقاءها إلا وأدبر وولى وفر تلف الجموع تلقاءها عفوا وتنساق إليها الزمر تصغي إليها شذرة شذرة تشنف الآذان تلك الشذر وحظ واعها وقرائها نور البصيرة ونور البصر فيصبح الفاجر من فضلها برا ويمسي البر يدعى الأبر باي نم أمتي خم خم ديكو وقت dara taxut mu koy wax lu dimbale diina gamu gi dara taxut mu koy def lu dul dimbale diina waye boko fekke fami gamu muy wax boko fekke fami khutba muy wax waxut lu dul loo xamante ne jubal ñi jëmale ci yoon bu baax bi waxut lu dul loo xamante ne jëmale nit ñi ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxut lu dul wafaalul xayra laallakum tuflihuna def len lu baax ngir ngeen bokk ci ñi nga xamantene dañoo texe waxut lu الايمان بالغيب قم لين لفادو اقيموا الصلاه تخول لين جلي وانفقوا مما رزقناكم دندل لين سلم لين لين يالا ماي لو رك لا واخ تا نيون لا يالا واخ ني اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون نون دي نين سي نجوب بو خامتاني نجوب لير نون واي نيون تاميت نين سي ترانغا نين سي تخه كون باي لي مي ديف نون واخامي بودون داغا باخ da ngay jaar foofu gën a baax bu doon da bon da ngay jaar foofu baax te loolu rek mooy objectif gàmm boo xamante ni bàyyi loolu la ci jublu woon ndax dañ fiy dajaloo pour fàttaliku yenantu bi pour kontaanee yenantu bi pour wax yenantu bi nu daan dundee nu mu mënoon a muñee num daan baalee nit ñi ni mu nekkee yenantu yërmande te yërmande boobu rek moo xacc ci ñun moo tax ñi dajaloo fii ngir màggal ko moom sallallahu alayhi wa sallam yenantu boobu nag dañ koo war a màggal mooy teranga bi nga xamante ni yàlla moo ko defal doomi aadama yi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dañ laa yónni ngir nga nekk yërmande pour mindé fi dañ la yoni ñeyal nit ñëpp dañ la yoni ngir nga nek daa yi kuy oote ci yàlla mu bashir ngir nga nek koo xam da ngay bëggal nit ñi ne bu ngeen ma topé aljana ngeen jëm ngir nga nek ko xamanteni da ngay xupp nit ñi ne len bu ngeen ñëwut ci diine ji yàlla safara la len khadul ëllëg motax sallallahu alayhi wa sallam lum jubale nit ñi leer la lum jubale nit ñi leer la lum jubale nit ñi mbax la lum jubale nit ñi ndigal la ndigal bobu nak mo ñi dajale fi bësam bu mag bobu ñi koy màggal ngir amé ci ay nafahat ay opinion yu bees di yene mbolen jëf yu bax ñi def ta dara taxut ñukoy def lu magal màggal yenentu yàlla muhammad dara taxut ñukoy def lu dul bëgg yenentu yàlla muhammad dara taxut ñukoy def lu dul jéem a xencu yooni yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ni mo ci doon wax ne ومن حاد عن نهج الرسول فإنني على نهجه ما عشت وهو حميد أسير غرام لا أزال متيما وعن نهج خير الخلق لست أحيد إذا صار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوما فالمسير بعيد كجد دمت بنين يون بدر يون ينتي الله محمد من شيخ إبراهيم قسم بن يون يون بميجار جار رك موي يون ينتي الله محمد بدو خير مدخ كم يون دنيو أوتنا أي ay taalibe باي bàyyi bu doxee dox rek تدخمي بوك نتينا بس بي بجوتان دكاي ماغال لخ موم مو انا مستعدون لتعظيم المولد المكرم فوق ما كنا نفعل وأرجو أن تقتدوا بنا في ذلك وأن تحذوا بنا حذو النعال فإنا ما رجونا الخير إلا من ذلك وقد رأيتم كيف تفضل الله عليكم وغيركم يستشرف للذلة وما ذاك إلا من لحظات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ينبولي تاليبي مانغليني يجلني من شيخ إبراهيم رن دما باري بور مغل ينمتبينو أبنو مخورون مغلي dama bëgg ngeen roy ma topp samay tànk ci loolu ndax ñeneen ñi buñ nekkee ci hay yàlla musal leen si may leen ay ngeen ñeneen dara taxut lu du gendeeku buy gen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di gendeeku jëm ci ñun te baay da doon wax ne yonente bi إذا التفت الهادي إلي فإنه يغطي ظلامي نوره والحقائق يننت بي بوغند كو جيمتي ياو رك لودون لندن تي ياو دافاي موجي جوغي ناخ يننت بي لير لا نور من الطلعة الغراء قد حجب تلير اك لندن مونو نيو داجالو بن بلاص لير لير رك فاي نيك لندن لندن رك لا تي يننت بي دو داجيك لندن موكو كون فاو ني ماغال yonent صلى الله عليه وسلم افرح بميلاد الحبيب الاعظم واطرب بذكر المصطفى وترنم وإذا سئلت عن الدليل فقل لهم ما بالترنم بالمصطفى من مأثم حبي له أملي وباب سعادتي حبي له أملي وباب سعادتي حبي افرح وصل عليه واجعل حبه نبراس قلبك في الزمان المظلم أتظن من فرحوا به يشقوا به حاشا لربك ذي العطاء الأكرم افرح كنت أنا ci jiddu yonent yàlla muhammad luy sa dalil ne len jarul dalil ndax sama xol mo wér ta xol bu wér yonent bi rek la wara a bëgg xol bu wér yonent rek mo fa mën nek xol bu wér du xencu keneen ku dul yonent ndax xam na ne mbax mo yonent bi teranga mo yonent bi ifrah kontanal bo kontane julil ci mom te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci nek ci yool kenn xamul num tollu inna salata ala nabiy wasilatun mardiyatun tumha biha al atham wa biha al mar'u izzu shafaa يبنى بها الإعزاز والإكرام كن للصلاة على النبي ملازما فصلاته لك جنة وسلام جلل تينا انتبه نخ يون لا يون بن قرم لبو خمانتني بولين بكاري لي يفار يون لبو خمانتني لمي تخوال ترانغلا يون لبو خمانتني لمي سمبو مباخلا موتا كوبغ باخ انفوغ نتقو جلل تينا انتبه صلى الله عليه وسلم ku bëgg baax say bàkkaar faaru il faut nga takko ci julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko tax nga deg bàyyi naan alayka salat alayhi salatu allah thumma salamuhu bi kathrati taslimi ala al mustafa fuqtu ma ngi julli ci yenente bi waaye bëri julli bo may julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax maraw kenen kudut man li fii ki ya ard hijazi حبيبه نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد وفي السماء محمد وعند الإله مقرب محبوب يا يوم ميلاد الرسول محمد يوم عظيم للأنام طروب أم ننسوبة نيب منك أرض طيبة مين أنت الله محمد كنا خمنتني سافر لبور خلي فيبر يب كوك موي كنا خمنتني موي أحمد كوك موي محمد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 واشهد ان محمدا رسول الله كون يننت بوب يننت بوب ماغ بوب nga xamantene li nek tay ci mbax moñu ko indil buñ magalu bësam bësi kan اني بذكرى رسول الله محتفل ولا ابالي بفتوى غير محتفل ما الفهم ما العلم ما المفتون ما العلماء الا من نعظم دواما خاتم الرسل ñun dañuy magal yenen tubi te suñu yoon nekkul ci ku àttana du màggal yenant bi xam-xam mooy lan dégg-dégg yi mooy lan borom iftaaw yi ñooy ñan borom xam-xam yi ñooy ñan buñ tar buñ narta taxaw pour màggal yenentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ndax xam-xam bi ñu am benn balluwaay la am mooy yenentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam leer bi ñu am benn balluwaay la am mooy yenent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam dégg-dégg bu ñu am fu ñu ko jëlee ci yenentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam kon dañuy magal yenant bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy contane dañuy waxtane yenant bi moy kan ndax lool moy suñu mbax laqad talaa alhilaalu hilaalu taha fa ya bushra wa wahan ثم واها أبجله أهنئه وحتم على الشعراء كذا أحباب طه ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى حملت به نالت مناها متى حملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الحاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي نيل فتح وأشرب ماء سر بل مياها باي مني fenq لفنق ويرو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نخمنا sallam nga xam لبيدم لاح الربيع فزاحت عني الكرب وهاج تذكار من تعلو به الرتب نقري يبيدم فيا بشرى وواها ثم الله مكتي امنا تا ني وخ اسكيت لول ماغي ماغال وير بي مانكو يكتي تا ورنا شعراء يب واي ورنا سوبي ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم نخ لو جودو بس بوب موي لير لير بيغا خامتيني لو يالا امر رك سي بركه ينتي بوب لاكو امالي لير بوب دا فجر ماغال مو amina ba mu ko ëmbee rek la am mboolee mi càkkuteefam amina ba mu ko ëmbee la ko yenentu yeeg malaaka yi ñëpp di ko bégal ne ko bégal yaa ëmbu gën gi mindeef comme ni mu ñëwee ci xissa bu gudd ba man Cheikh Ibrahim doomi xaaj Abdullahi mi bu ma ko gisoon danaa ne ko maa ngi lay ndokkeel ci ëmb bi nga ëmb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci bési juddoom man Cheikh Ibrahim ak samay taalibe yëpp ak ñun ak taalibe sëriñ bi yëpp Cheikh Mahi radiallahu anhu ci bési juddu yonent bi la ñuy ñaanee fatxu la ñuy ñaanee ubbeeku ci yàlla la ñuy ñaanee ubbeeku ci zahir ak ci baatin ndax bés yenantu bi ku ci ñëw rek ba pare ñëwee ko Medina Baye dëgg-dëgg say càkkuteef mat na ul xaamidun dafa am benn qasida muy wax mu ne qad kuntu bil amsi لدى أندرى وقبل ذلك بمذرذرى وقبل ذلك بتن يخلف بالغاب حيث أستكف العرى وآخر العهد بهم ضحوة وآخر العرض بهم ضحوة على وداعنا حديث جرى أنابذ أنت لنا بالقرى, بالقرى قالت ولم تترك لنا من قرى فقلت إني قاصد كولخا مدينة الشيخ فتاة القرى فابتسمت تفتر عن لؤلؤ رطب فقلت التمر والسكر فجئت بالكيس معي فارغا كي أسرع الأوب به أبجرا مني ما maa ngi بركي ndar démb barki démb feneen maa ngi ci àll bu tudd tan yaxlif boo xamante ni àll bi mi ngi ma féetoo garab yi ñu ngi ma féetee fu ne waaye ba may mujj foofu noonu ba may tàggu soxna si dafa ne ma ah ul hamidun dangaa nar a dem te bàyyiloo ñu benn dépense ma ne ko déedéet man madinatu cheikh laa jëm madina bàyyi laa jëm bi nga xamante ne mooy jànq yeneen dëkk yi te loolu bàyyi moo ko njëkk a wax ne man kaadaha فليس ذا بضائري جرت ذيولها على الحواضر لأنها مظهر فيض الخاتم فيها رجال ذوقهم كالحاتم سرى لها سر مدينة النبي خبثها تنفي بلا تريب مدينة كوكي بخل منو كولور نخ ديرنا سيمبانام تي كاو بنين دك بودون موم ولا حامد نكو فلا جام مو ندو سي دما مدينه لا جام رك مو دادي ري مانكو تمر وسكر ناري نيوكاي واخ تي ولا دارا mune ma gaaw ñëw medina ak sama fu ma war def sama xaalis bi ndax ma gaaw delluwaat ndax xam naa ne bu may delu day fess ul hamidun nak kessi hissam la indiwoon xaalis la ci soxla tuti xaalis bo xamantene bala yag mu jeex ñun taaliba yeb ñëw nañ fi pour magal ba pour màggal yonentu allah Muhammad ci ndigalu baye ci buntu maulana Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé indale suñ kessi waye ay xaagaat maanawiya lañ ci soxla yokkute ci baatin lañ ci soxla yokkute ci leer lañ ci soxla yokkute ci lasaraar lañ ci soxla yokkute ci sell ak xol lañ ci soxla te xam nañ ne buntu bii kenn du fi dëkk kenn du fi taxaw ba pare di neen akaftu ala baabi nabiyi muhammadin wa man raama durri fa huwa ajda wa anfaaw ñun kii mooy suñ muhammad taxaw nañ ci buntam te xam nañ ne duñ dellu ak neen bu ñuy dellu suñ soxla yëpp dafay mat lu bàyyi waxoon ne ba ma demee màkka بوما دبي بوما لاجي فو وان سالوا هل زرتم القرم عاقبة وهل اتحف الزوار منه مواهبة فقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقد طالما اولى الغنى والمكاسبا لمن وفدوا من تل الجزيره بينما وفدتم من الاقصى لقيتم متاعبا وقد جبتم الاجواء ليلا وفلككم به شابك الملاح تلك السحائبا اقول ملا سرا وروحا وكلكلا وحتى ملا أكياسنا سنا من باسم ديالو ñu ne ma da dem ziyaare ku mujj ci yenantu yi ma ne waaw ndax ba ngeen demee may na leen ndax moo gën a tabe ci ñuy tabe waxat yàgg naa maye ñu jugee ci jazira arab bii di ko seeti yàgg na leen a may te yéen da ngeen a jugee fu gën a sori bàyyi mu ne bu ma leen di tontu dama leen mala sirran suñu sirru yi feesal na ko mayu ñu def koo feesal wa ruuxan ruux yi feesal na ko wa kelkala xol yi feesal na ko wa xatta mala akyaasana wal xaqaa'iba ñaar yooyu lañ soxla suñ keesi zahir yi dañoo bëgg sëriñ bi feesal ko suñ keesi baatin yi dañoo bëgg mu feesal ko te xam nañ ne amul benn sikka loolu dana am comme màggal yonent yàlla Muhammad mënta ñàkk wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nuthabitu bihi fuaadak ngëneeli yàlla boobu di yonent yàlla Muhammad il faut ñu màggal ko ngir suñ xel dal il faut ñu màggal ko ngir nga am ñu amaat xam-xam yu bees dañoo toog fii tey pour jaayante wat ne ñi ngi ñaan fekke dewente at bi yep muy nek lo xamantene ci liggeel yonent yàlla muhammad la ci top yonent yàlla muhammad la ci top yoni bay la lool moy gam waye il faut ñu jël occasion bo xamantene dañuy wax bay yonam lan la bay yonam njub la fa nahju sabili واضح لمن اهتدى وقد خاب وقد خاب من يبغي وجاجي ويطلب yoon bi ma jaar man Cheikh Ibrahim waadixun leer la li man ihtada ku am njub jubu xol boo xoolee danga xam ne lii njub rek la waaye waqad xaaba man yabgi wijaaji wa yatlub kuy xaar gis ma def lu dëng di ko sàkku ko dana am xaybati amal yaakaaram mooy tas ndax du ko mës a gis te boo koy xaar ci taalibeem yi nga xamante ne dëggu dëggal nañ ne ñoom ay taalibe baay lañ دوكو غيس ناخ بظاهر الشريعه شريعه بو لير لا لين يري شريعه لا ني ديف لو خامتاني شريعه منو تي ديندي دار والنور المبين لو غنا ماغ تي غناو لول موي بظاهر الشريعه والنور المبين موي سما طالب يي دما لينا يار تي شريعه اك تي حقيقه تباي نيار يو ييب لا بوله ناخ منو جاب بي باي بالي منو جاب بالي باي بي تا موم مو واخني ان سري كلام رب المبين أي إله الذي به نستعين فاجعل الروح واللسان دواما وفؤادي متى تلوت يلين تقشعر الجلود والروح يسمو عند ذكر الحكيم أو يستبين أسلك النهج بالشريعة نحو الحق خلف المصدوق وهو الأمير صوبنا يونبي ويبايور شريعة بين يون صوبنا يونبي ويبايور حقيقة بين يون ت وإنما الكامل من قد جمع بين المقامين كما الدق ما يكون خمنتني دفع بول الشريعة boole xaqiqa te bàyyi loolu la waxoon ne jamcu shariati maa tariqati ila alxaqiqati al ura al wathiqa kon ñetti maqaama yaa ngi noonu sharia ngoog am na ay wàccuwaayam tariqa ngoog am na ay wàccuwaayam xaqiqa ngoog am na ay wàccuwaayam waaye ngel la nañ dëggal ne ñun ay taalibe bàyyi lañ nu ñuy dëggalee ay ne ay taalibe bàyyi lañ mooy ne dañoo war a xool li bàyyi rëdd ak lu bàyyi tànn ci lépp mu doy ñu wëlis leneen lu bàyyi tànn te mbaax dëgg-dëgg ci buntu Cheikh Ibrahim la am ñun dañoo teew fii tey pour màggal yenentu bi nga xamante ne mooy yenentu yërmande te bu taxutoon bàyyi xam biñ ko xam ba koy màggal biñ ko gis te yenentu sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xamante ne Abdullah ibn Omar ibn al-As moo ko solo dafa wax ne yenentu dafa toog bës jàng aaya bi nga xamante ne yàlla moo ko wax ci làmmiñu Ibrahim na rabbi innahunna adlalna kathiran min ibadi kada jàng aya bo xamne isa moko wax yàlla moko wax ci làmmiñu isa in tuadibuhum fa innahum ibaduk mun ne yenentu xool asamaan daal di allahumma ummati allahumma ummati yàlla sama nit ñi sama nit ñi mun yàlla yoni jibril ne ko waxal muhammad ne ko lan moo koy jooyloo mu nettali ko nu mu demee moom la khalat منكو قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك خلي ننتو بينكو دنينكو غرم لو تنتمي تدينكو ندفل نياو تنيوم ربنا ويكن قرأنا في الضحى ولا سوف ترضى فسر قلوبنا هذا العطاء وحاشاك يا رسول الله ترضى وحاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ينتبن جانغو في سورة الضحى ولا سوف يعطيك ربك فترضى من يالا دنا يالا دنا لا ماي بان غرام بان كو جانغي رك دانيو ام بكت تا ينانتو يو دو غرام موكو تا فك ني نون كين يالا مين كوي مبغال ku rafetee ni yow jigéen bët musu gis ku matee ni yow jigéen musu jur moo tax bàyyi mu ne bàyyi di nettali ci loolu ne ayawi laka rusulu lkiraamu walam tasaa li dal abdi ibrahima yowma alliqaayi أتعطي جميع العالمين وخادم محب قد أتاك لم يؤب بأطائي أتترك عبدا قد أتاك مقرضا ومن جودك الأخرى كمثل الدناء يا شافعا في الناس بالحشر سيدا تلوذ به الأبصار رب لوائي وقد خاف أولو العزم والحال إنهم لهم عصمة تأبى لفعل خطائي وقد خضع الأملاك والكل قائل لدى ذاك نفسي لم أبل سوائي هناك خر هنالك خر المصطفى ساجدا لمن له الامر اذ يثني بخير ثنائي فقال له سل تعطى واشفع وانقذا فانك مقبول واهل عطائي يوم من خمنتني نيبت يا ولن تابيو اسك من ابراهيم من نافي نياك بلاص داغا ماي نيب بام ديس مان ندخ داغا جاب نيب باي سا جامبي nga xamanteni ci tagal la nek ci weyla la nek ci top sa yon la nek yow mi nga xamante ne yaay rambu ñëpp bés bu nga xamante ne kenn ñemewut a rambu wa nuuxun wa muusa walxalilu ka aadamin wa isa aqarru an laa siwa minhu maxraju ñoom ñëpp ñooy taxaw dem leen ci muhammad kii ne demal ci kii demal ci kii bañ mujj ci yonent bi yonent bi bu yegsee ci moom nag bàyyi mu ne hunaalika xarra al mustafa saajidan sujuudal yàlla mi nga xamante ni lahu l amru wal mulk yàlla ne ko fasal toota ñaanal rek ñu may la washfa koo koo ramb ñu ramb ko wa anqidan koo xettali ñu xettali ko fa innaka maqbulun yow de kuñ nangul nga wa ahlu ataai te ku yelloo may nga bàyyi tamit moom moo wax ne yonent bi moo ko may wa qad jaani yowmi min ahmada annani wa madxiya maqbulun talaqaytuhu nassa bàyyi maqbul boobu foog ñu jàpp ci loxoom ndax xam nañ ne buñ jàppee ci moom rek mucc cheikhu ibrahimu خير مؤمل لقضاء حاج المستهام الآسي في صدره كشف الحجاب وقد نرى في راحتيه غنى ذوي إفلاس يا فوز قوم قلدوه إنهم مستمسكون بأوثق الأمراس شيخ إبراهيم مو بنت كوني ياكا فيه غير فجأة أجو جامو يا الله أجو ظاهري أجو باطني دنن بلي فنك لو كشف حجاب لا لو دجوك حجاب واي نياري تنخمي بلا ما يرك غدو يال ألفا وألفا وآلافا ويتبعها من الترحيب آلاف مؤلفة الحامد من باير فلا يجوخ جني جني جني جني فري ديكو بولي مرحبا نيرو جيخ باي بوم نغا خمانتني كي نينا يا فوز قوم قلدوه اونا تخيج نيت يو خمانتني ني روي سي موم لوتخ انهم مستمسكون باوثق الامراس بوم بي غنا دغر لا نجاب ناخ يوبو لودو تي يالا دولين يوبو لودو تي محمد باي بوم ak mbaaxam googu pour ñu roy ko il faut ñu xam baay mooy kan te loolu il faut buntu bi nekk xam-xam alamani lyowman diraasu sunna maaxib dalaali qaidi lil janna li ma naqadi mooy sunna yonent bi bu faaru waaye maaxib dalaal mooy ki nga xamante ni moo ñi sunna maaxib dalaal bi faaroon bi moo metti métti waaye ñun suñu maaxib dalaali bi yóbbuwuñu fenn lu dul ci baay radiallahu taala anhu fàttaliwuñu kenn ku baay royloowuñu kenn ku dul baay sax maqaama bi li muy màgg-màgg bugul sax mu feñ baye rek lu xew mu na ah, lolou dara baye rek la lay delo ta baye mo wax ne man فالاقتداء حظي وقلت منشدا فما لنا الا اتباع احمد فهذب النفوس والاخلاق لكي تصون السر والاذواق توافق الاكفاء والاشكال فالامر واضح فلا اشكال bàyyi pour ñu topp ko il faut ñu xam bàyyi lim ne woon lan la ñu nekk ci loolu ndax li bàyyi nekkoon buñ ci nekkut ñun ñooy oote taalibe bàyyi rek waaye bàyyi jàppee jàppeewuñu ay taalibe xanaa yàlla yërëm ñu rek te bàyyi lim nekkoon leer na wax na magam ne ko man duma taay di jubal mindee fii laa axmilu nnaasa في السر والجهر بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الظاهر والباطن والاجتماع لصلوات الخمس وقراءة الوظيفة وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى سرا وجهرا والعمل بكسب الحلال فمن امتثل أمري فلا يشتغل إلا بهذا ومن لم يمتثل أمري فما أنا بصاحب سيف وما على الرسول إلا البلاغ المبين من دم سن ني لدود تي تقوى الله رجل يالله تخمين ген رجل يالله موي مبوتي مبوتي وعاقبة محمودة لا ينيلها سوى عمل التقوى خف الله واصبروا تقصيدة تلاميذ تيان بايلو وهنا مجغر في الدار منكو ما يند لدر رجل يالله واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتقي الله البطل رجل يالله رجل يالله ددكو خل ددر خل بوبي يجنش يالله رجل يالله مويلنك كوني عقل نمكو خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر يحذر من خطأ لا تحقرن صغيرة إن إن الصغاء إن الكبار من الحصى ولا إن الجبال من الحصى ما عرفش تقوى الله مي باي بكاري ندوي باي بكاري ماجي دي دوخ من نيكو خمنتني في غير دوخ أي أي دجرة كفنك دوخ وهم غير دعوة ميتود رجال يالله مي غير دوخ تبي يالله يدي ميتود لو خمنتني وراكوا الله di bàyyi loo warta lal di baña waxe lo xamanteni waro ko wax bay mu ne wala amali bi kasbil qiraatul quraan yi te moom moo wax ne mo len def yu baxé yi def na ko mus ta bayu ko sax mu ne gisuma lu gën alquran wa dhikrullah tuddu yàlla ta bay mo wax ne uhaddidu ashabi dawaman ala dhikr samay talibé dama leni soñu heure bu nek ci ñi zikkar واي وفي مذهبي لا تذكر الخول بالجاري جيجين دو ذكر سما حضرة جيجين دو ذكر سي حضرة باي باي لون لا واخ كنتو باي لون لا ورا ديف نخ باي مو واخ وذاك يغني النساء سر وسر لله وجهر جر واي بنين ليتا بو خني مين كاي محمد الله بن سيد لون كاي واخ موي والمرأة لا ترفع صوتها بالذكر وتسمع من تناجي فقط والله يقول الحق وهو يهدي السبيل جيجين دو يكتي باتم بوي ذكر na na wax ak ki muy wax ak rek mooy yàlla te dana ko dégg yal nañu yàlla jubal bàyyi loolu la wax kon ak zikkar wala amali bi kasbil xalaali liggéey pour fàggu lu dagan ndax di lekk-lekk bu dagan daf lay dimbale ci nga jub daf lay dimbale ci nga topp yàlla bàyyi lim ci teg mooy fa man imtathala amri fala yastaxilu illa bi hada samay ndigal képp yoo koo xamante ni yaa ngi koy toggoo doo yittewoo leneen lu dul lii wa man lam yamtathil amri fa ma ana bi saaxibi sayf taalibe yi na ngeen yar seen bakkan yi yar sa bakkan mooy nga tar di def comme ni nga doon defee ndax boo deful loolu rek perte nga laqad xaaba majzubun صحاوة مردا ولم يحسن الطاعات مال عن الهدى فمن بلغ المطلوب فليسعى شاكرا وإلا فجذم الروح نهجئ للردى عليكم بآداب السلوك هنئتم لا تحسبوا دهرا بأن تتركوا سدى مجذوب بو تاني am na lim bëgg li ko war mooy mu dellu siwaat jàpp yoon bi di dox di rafetal topp yi ku defut lool bàyyi mu ne ko perte na ki am sa càkkuteef fanaaw am na jéem koo dépassé misiri mu ne ci xanaa bi lee dawiya ma gisee ko am fanaaw ba pare sax si bugg faa toog rek man daal doo ma neex waaye bu ma la gisee yaa ngi góorgóorlu di dox sulóog di topp say mbir man danga may neex daal damay xam ne yaa ngi ci yoon yi mat lee duñu wax ne bon na waaye du mat te baay mat la soxla nañ topp aadaabu suluk nañ wàññi nelawee ngir am xam-xam nañ yokk mbaax yi nga xamante ne bàyyi loolu la ñuy tegtale kon fa hadibu nufuusa yar bakkan yi dafa baax ndax bakkan dana la rafetal loo xamante ne da ngay yaakaar ne lu baax la te fekk ne loolu toskare rek la suni nafsa waxmilha ala ma yuzinuha ta'ish سالما والقول فيك جميل ويكد waykat bi dafa waxoon ne yaral bakkan bi te defloo ko loo xamante ne daf koy nga dund ci jàmm sayri di wax ne kam hasanat ladhatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi ad dasan wa hadna wan nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubb ar-radha'i wa in taftimhu infatim nañ yar pour muna top ndax kam hasanat lil mari barina na lu rafetal kam hasanat ladatan lil mari qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi dasami daf lay rafetal dara ba nga yaakaar ne lii lu rafet la te fek ne loolu rek moy lu ñaaw motax bayne wa hadibu nufusa pour ñu top bàyyi il faut ñu yor suñ bakani ak lan mu ne ñu wal akhlaqa il faut ngeen defar seen jiko yi ndax borom jiko bu rafet rek mo mo yomba jeflantek te yonent bi mooy wax ne aqrabukum minni majlisan yawma alqiyamati ahasinukum axlaqan ñu gën a jege ak man tooguwaay alaxira mooy ñi nga xamante ne ñoo gën a rafet ay jiko te bàyyi ci yar jiko yi la nekkoon li kay tasuunu sirra wal adwaaqa ngir lan ngeen sàmm mbóot yi mbóot yi nga xamante ni fi mu ne dañ koy weeje di ko jaay mooy nañ ko sàmm feneen dafay wax ne wa alaykum bi kat bi katmi al asraari qawlan wa fi'lan قولا وفعلا ودعوا عنكم التجاهر بكلام أهل الحقائق واسلكوا الصراط المستقيم نين نب تي أي وخ تي أي جف باي لول لا أوتي نين نب تي أي وخ تي أي جف ndax moom ولا ينبغي للواصلين wala قبيل وجود الإذن فالسر يستر ويعجبني الصمت الطويل فإنه دليل على العرفان والحال مخبر ولا خير في التعبير في كل محفل قد انتقل الأسرار من حيث يجهر رعانا إله العرش بالسر سره عليه صلاة الله فهو المدبر من طالبي دي غونغيكو دي واخ دي كو باي مني لول lool تمن شيخ ابراهيم Cheikh ما ييم maa yéem dama تباي لوم بغ خنا ني بور نانكو مانا بغ ناخ نين موم لاني بغ الصمت الطويل نوبي بو ياغ ومن نال سر المصطفى اكثر الصمت موي لول بو امي تكتال لو مي تكتال موي خام بو بري نانين نبو مبوتي ت مبوتي اهل الحقائق بو لنكو ويجي ني تا نين سوبو يون بو جوبي موي ني لي ديكو ديف نيكاي ديف بوكون سي اهل الصراط المستقيم سياق قول باغي نون لكي تصونوا السر والأذواق يجي يجين يعني أم أشياء الله نين كوي نبو بين أم يكوين كوي وح نين كوي وح نتكسين سري مرتان يجي تبين الله ترى مي وح مشري نكو وأنا الذي أفهم رجل ذهب في الله حتى لولا فناؤه في النبي والشيخ قبل لنسيهما أو جهلهما والعكس ضلال مبين واعلم بأن علم المجاذيب وخوضه وخوضهم بشيء لا يعرفه غيرهم لا فائدة فيه فأرجوك أن لا تسمع كلامه وما ورد عليك فقله لي إن كان حقا أثبتك عليه وإن كان ضلالا زجرتك عنه حتى تتميز حتى تتميز وحتى تتمكن وتميز بين الحق والباطل إبراهيم من حاجة الله منكم من شيخ إبراهيم لما خم ويكو خم أنت دفع دختي يلا ببوت خطون فنا أم تي ينتبي أكتي أكتي شيخ تيان رضي الله عنه مفتلين ولا مريرين سفان لون رير كسلان dox ci baay dox ci yàlla dox ci yaa Tiyaani ci yeneen bi ba fàtte yàlla mu ne loolu réer kese mu ne majzuub yi nag yi ñuy waxantoo ak yi ñuy xuus di ci dugg amul benn njëriñ maa ngi lay ñaan bul déglu seen wax yi xaatir bu wàcc ci yow nag wax ma ko fekkee dëgg la ma saxal la ci ne la lii dëgg la fekkee du dëgg nag ma dàq la ci génnee la ci génnee la ci ba nga dem ba xàmmee diggante dëgg ak neen ba nga dem ba xam ne da ngay nekk mutamakkin ku jàppandi ci maqaama maarifa kon li kay tasunu sirra wal adwaqa waaye lu mu ci teg mooy fal amru waadixun fala ishkaala mbir mi lu leer la leneen luñ ci yokk loo xamante ne da koy lëntal rek bokkul ci mbir mi loolu mbiri leneen la bàyyi mbiram dafa leer wa nahju sabili waadixun loolu lañ commencé kon te topp ko dafa laaj ñi xam ko ñi xam mbir mu nekk bu ñëwaan bàyyi nu mu ciy doxalee mbir mu nekk bu ñëwaan bàyyi nu mu ciy waxee te loolu buñ ko defee mucc rek la ñuy gis suñ kanam te bàyyi boo ko toppee ndogal yi bu ñëwee doo xëccoog ñoom ndax da ngay xam ne li xadiisul xudsi bi waxoon ne li xadiisul xudsi bi waxoon ne jaam bi sama ngërmande mi ngi ci nangu ci samay ndogal man lam yarda bi qadaa'i wa yasbir ala balwaa'i فليخرج من تحت سمائي ويعبد ربا سواي كيف كو خمانتني نانغو سماي ندوغال دي مون تي سماي ناتو فليخرج من تحت سمائي يالا موي نا ген سمارون اسمان وليعبد ربا سواي نا اوت بنين يالا بودون مان كو من لول موتاخ باي ني كو توپ يوني باي سحال موي دا ngay واخ ني معانده الاقدار شرك وتتعب ولم تنفع الكلا وهي العقل تذهب فهو الواحد القهار والملك كله له اليوم حقا لا يلام ويعتب فمهما يريد امرا يكن رغم انفه ومن لم يشاء ما شاءه فهو يتعب ويكفيك جهلا ان تريد سوى الذي يريد فذا لا شك جهل مركب دي فيتر لو تي كاون دغول باي مون بن بوكال لا تو جامبي ورت بوكال يالا ورت بوكال يالا كينن نخ يالا اغنى الشريكين بوكو بوكال لنين رك مو بايلاك لول وتتعبوا دفلي سونال ndax boo bëggoon a may sa bopp lu la yàlla may tamit sonn rek te jëriñut te dafa yóbbu xel yàlla mooy kenn mooy waaxidu mooy qaxaaru te lim dogal loolu rek mooy am ta doy na nit ki réer mu namm leneen lu yàlla nammul abdi innaka turidu wa ana uridu wala yakunu illa ma uridu li ngay damay namm ngay namm te li may namm rek mooy am boo boo àndee ci li ma namm kunta indi mahmudan boo ci àndul nag كنت عندي مذموما فكان بوغوت نيك كو نياني سي كانامو يالا يوني باي لول يوني باي موي ني يربكاني عليكم بالنفوس اذا اهتديتم فما ضر المرشد ذو ضلال ومهما قيل انتم في ضلال كفى علم المهيمن ذي الجلال وان صرم الوصال اخو الوصال ووافقنا المهيمن لا نبالي وإن تمر بلغو كن كريما فما ضر المرشد ذو ضلال وإن صرم الوصال أخو وصال وواصل المهيمن لا نبالي باي مونا جسو لين جمتي بكاني بوين جوبي جسو بور لان بور غن كو باخال بور غن يون بي خمنا يون بي امو تاخاو بوين نيكي تي نك يوك نيك تي صراط المستقيم بيغا خامتاني موم لين نمال بولين راغال نيغا خامتاني دانيو رير adina yeb buñ dajalo woné da ngeen a réer da ngeen nek ci ñub ci kanam yàlla lool du len lor dara ñeb buñ len dogon yàlla ànd ak yéen du len wañi dara kon yoni bay lool la yoni bay moy lim doon wax ne ma'ashara al-aqrani bis-safhi بالصبر والصفح والصفح عن الأقوال بالقيل والقال فلا تشتغلوا وبصلاة الفاتح القلب اشغلوا ولتعلموا بأن ما يشاء إلهنا يكون لا تشاء yooni bàyyi mooy daf leen dénk ne ñun mbokki taalibe yu toog ñi ànd ñi nekk benn ñi jéggalante di jëlalante di muñalante di jàpp ci salaatul fatiha bi di wirdu ba tàng jër xam ne loolu la bàyyi santaane wax yu sew yi nañ ko bàyyi bàyyi mu ne loolu bokk bil qiili wal qaali fala tashtagilu lan lañ war a itteewoo mu ne wa bi salaatil fatihi al qalb ashgalu na ngeen yitteeloo xol bi topp yàlla subhanahu wa taala jotaayi taalibe Baay mënut a ñàkk léegi fàttaliku ci xam-xam fàttaliku ci Baay ak lii yëpp Baay la mbaax moo tudd rek Baay mi foofu te ci loolu lay wootee fal xayru kullul xayri fii ityaanihi yiw bépp ak yiw mi ngi nekk ci dikkal Baay kon jikko yi ñuy wax ne Baay ci loolu lay woote du dañ koy wax rek ngir bëgg a wax du dañ koy wax ne ngir dafa nekk ci bopp bi waaye dañ koy wax pour nit ñi roy ci waaye li ko war a royee nga xam ne moom moom la gën a bëgg moom la gën a màggal mooy mbëggeel bi nekk ci yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xolam jàng na xasida bi léegi hal yataattaa xubbu gayri muhammadin ama shiru illa fihi wannagamaatu ma achiqa almaaduuna gayra muhammadin wa ma yachaqu almaaduuna til xadaraatu wa ma wajada almaaduuna gayra muhammadin fa ahmadu min rahmanina rahmaatu ndax bëgg keneen ku dul yonentu yàlla muhammad mën naa ne di ci yéemu sama way yëpp ci moom laa ko def te woy mandarga la ci mandarga mbëggeel boobu mu doon tudd woy mandarga la ci mbëggeelam ndax moom moo wax ne xaraami wa tahyaami wa wajdi ya rufqati wa qad baata shaari an siwaaka muharrama feneen mu ne ko ataaka muhibbun xaadimun shaacirun lakum ara gayra madxil haashimi munaqisi رسومي أمداح النبي ولا فخرا فما في سوى مدحي له أنسج الشعر تركت جميع الشعر غير مديحه سوى دعوة المولى أو أن أقصد الذكرى لمي وهمي باين تقيب تقيين أنت برك ما ندر قلت بقلقي حرام الله تقام تكينن كدر ينن تبي ما ندر قلت بقي ينن تبي وايا ما ندر قبو غنم مقموين نمتقو تيوني ينن الله محمد صلى الله عليه وسلم تقو بوباي أمونك ñun buñ ci tegoo mooy ne tegu nañ ci yoonu njub Ahmad Tidiane Ousmane ca Nigéria dafa wax ne afalat nujumu hudan fa ma min muhtadin إلا بهدي من أبي إسحاق بحر العلوم وقطب دائرة الفناء نور الزمان وسابق, وسابق السباق نسخت به آياتهم آياته لا نسخ يدخلها بقاء الباقي مولين بديو يدون ليرال نين يوني نجوب مولين دانيو غيم فيم ني فاي ناني امول كين كوي جوبار لو دون ني يوني باي nga تيغو تي نجوبي باي nga تيغو نخ باي موم مو ني موي بحر العلوم جيجو خم خم شيخ ابراهيم لا رضي الله عنه وعالم كل فن منتقا فله في كل فن تآليف مؤلفته ومن إذا قال قولا في مذاكرة فما إلى غير ذاك القول يلتفت مولم فانو خم خمي باي كو داجالي بروم خم خمي بو ني ورانتي بام واخ ني باي واخي نيب ديلو واخي باي رضي الله تعالى عنه كون باي جيجو خم خم لا موتاخ سكيري جي دون كو دون واخ كفى بانك قد قدمت بينهم مقدمين لهم في سيرهم رشد قاموا مقامك في سر وفي علن فتم منك لهم من شيخنا المدد لك الهنا وأبو إس... لك الهنا وأبا إسحاق في رشد بما هديت أناسا للفلاح هدو فضل لديك وعلم زانه عمل فهل يساويك فيما حزته أحد شيخ إبراهيم مانغلي ngi lay tatagal li nekk ci yow ci xam-xam boo xamante ne dara taaralu ko lu dul jëf bi nga koy jëfee ndax li nga am ci loolu lépp kenn yem naag yow ci loolu kenn yemut ak moom kon baxril ulumi la wa qutbu daairati lfana daaira fana bu amee qutb boo xamante ne mooy diriger bàyyi la nuuri zamani mooy leeru jamono wa saabiqi subaq ñi jiitu ñëpp ba yegg bàyyi mi ngi seen kanam buñ tourné rek gis ko seen kanam wa qad alima al aqwamu أني مبرز ومن حسد جاروا علي وأغلظوا وخدي وخدي يبقى يخمن إن ما رب نسخت به آياتهم آياته نم نيب فولي نن سيني كاوتي في فولي ننكو تباي لم اندي من دوسكو موسى فولي تباي ما وخنا هدمت الذي قد أسسوه وإنني بسر المقفى لا يهد بنائي لب لا رجح تقلو خمنتين نكندكو موسى دنديتي mbeugel bob li may lol moy ne léppam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko def وقد علم الأقوام وقد علم الأقوام أن أن طه المشفع لإمام الخلق طرى وثقت به ويهواه فؤادي وعودني الجميلة أنال فخرا وأعطاني مرادي ببر وبحر وعلاني على الأقوام برا محمد وهو روح الحمد سر الوجود ودافع الأصنام كسرا محمد سيدي كنزي وغوثي حباني بالمراد وزاد ميرا شفاعي, شفاعي عند أمراضي وغيثي ومستندي لدهري حين غرا محمد مركزي ومدار أمري على المحمود دنيائي وأخرى محمد قدوتي وأراه حسبي فلا زيدا ولا عمرا وبكرا نديمي سنة المختار لا لا على غير الحديث أروم خيرا سأرفعها وأقبضها جهارا على ذا فليلم الناس طرا إذا رضي الأمين فلا أبالي أذم سواه أم أطرى وأطرى من من قاي خمنا إنه سما إمام ويننت على محمد wóolu وثقت برب جاء bi سما خل بقناكو naa ko sama xol bëgg na ko waaye yàgg na maa ماينما سامي تا كوتيف تي جيريغي محمد موم موي حمد باتو الحمد بودي امنا روح محمد لا تموم لا سر الوجود موي مبوتي ام امغي واي ودافع الاصنام كسرا مو خرم ييب يي جامو موي كيغا خامتاني موكو مبال محمد سيدي موي سما سانغ كنزي موي سما ندخنتيف وغوثي موي سما خيتاليكون habani bil muradi wa zada mayra sama may may yëpp la ma sama càkkutéef yëpp la ma may ba pare dollil ma nag muhammadu markazi mooy sama feebar bu ma shifaayi inda amraadi mooy sama saafara bu ma feebaree sama mbir yëpp ci moom lay dawee waaye markazi mooy sama taxawwaay wa madaaru amri mooy doxal samay mbir ci àddina ak ci àlaaxira waaye mooy sama royukaay muhammadu qudwati waaye wa araahu xasbi gis naa ne ma doy na ma royukaay fala zaydan wala amran wa bakar royu ma keneen ku dul yonantu su naam mooy li ma nekk moom laay wéttalikoo ci laa nekk danaa ko jàpp danaa ko yëkkati kum neex na la neex kum naqadi na la naqadi sama yoon nekku ci bu yonent bi gërëmee rek gërëm nañ ñun ñëpp nañ fexee jaayante suñu xol ne li bàyyi def yonent bi def nañ ko bàyyi lu bàyyi def yonent bi def nañ ko bàyyi jàpp nañ ci bàyyi li fekk mi ngi gërëm ku gërëm sa affaire la ku kontaan sa affaire la na nañu yàlla boole ci dëgg dëgg taalibe bàyyi yal nañu yàlla xiir ci topp bàyyi yal nañu yàlla xamal xam-xam boo xamante ne def ñuy jëriñ yal nañu yàlla may ñi nekk ci ñi nga xamante ne nafaxaat yi muy wàccee ëpp ni yëpp bu leen ci kenn ëppale yàlla gërëm ñu gërëm suñu doxin gërëm suñu taxawin gërëm suñuy waxin lépp loo xamante ni def nañ ko ngir gàmmu gi yàlla xool ko gis ko te nangul ñu ko te bu ko nangoo mu fay ñu ko te bu ñu ko fayee mu fulal ñu ko taxaw nañ ci buntu baay di ñoo xamante ne ñu lottu lañ ñu ñàkk lañ ñu xamut lañ te aajowoo nañ xam aajowoo nañ am aajowoo nañ wér càkkutéef yi nga xamante ni ak may-may yi nga xamante ni yàlla bu ñàkkee lor la bu amee jëriñ la ñi koy soxla yépp ñu ngi koy ñaan ci buntu baay يلا نيكو يلا yàlla أحضر حوائجنا واستر معايبنا حسن خواتمنا يا الله يا الله كذاك كل محب بالجناب أيا مولاي أرشدهم يا الله يا الله إني توسلت بالاسم العظيم الذي إذا دعيت به استجبت يا الله كذاك ما قد حوى الكنز العظيم وما قد حازه فاتح المغلوق يا الله يا رافع البلوى ودافع النقم ومذهب البأس وشافي السقم أدعوك يا مجيب حين الخطب طم وإذ طمى موج الهموم والتطم وقد توسلت بأفضل الأمم وآله الأولى بهم تسمو الهمم وبالصحابة البهاليل البهم فلتكفنا يا رب كل ما أهم ولتشفي كل ما ألم من ألم بنا وفرج ما من الكرب ألم يا رب بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان ولتهدنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصر لنا الدين أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واجزي لكل من إلينا أحسن وجازهم عنا الجزاء الأحسن للمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد حبي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما اللهم لطفا خاصا من ذلك اللطف الخاص آمين. اللهم لطفا خاصا من ذلك اللطف الخاص اللهم لطفا خاصا بذلك اللطف من ذلك اللطف الخاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته